mbokk yi naa monsieur le ministre de l'environnement damay rafetlu euh, avenue Faidherbe bi nga xam ne euh, soppi nga tur bi ndaxte euh, xam nga ne bokk nañ ci ñi nga xam ne say nerf yi dóor nañu ndax xeex <laughs> turu yoon boobu Faidherbe dama koy fàttali pour ñi ko xamul Iba Der caam yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana moo doon wax ne Faidherbe ci diiru juróom-ñetti weer dafa rey vingt mille sénégalais maanaam yoon boobu biñ ko waree dàq turam du tey du demb du barki demb ku rey vingt mille sénégalais en huit mois ñuy xaar deux mille vingt trois pour changer turam c'est honte pour ñu gàcce la ndaxte booy tuddee tur dangay ngay màggal ku baax ku la bëggal jàmm ni ku la rey vingt mille ci yow pendant huit mois ngeen téye ko. pendant soixante ans loolu gàcc la mais dañuy rafetlu le fait que jëlee nañ fi enfin turam donte un Faidherbe noir Macky Sall a remplacé un Faidherbe blanc lu tax un bu noir Macky Sall a remplacé un Faidherbe blanc mooy Macky Sall li Faidherbe doon def lay def plus de mille détenus politiques ndax lan Ousmane Sonko boo nekkee candidat balaay dix heures nga gañe du dëgg du yoon il fait la même chose lan leneen lay def mooy toog seetaan ñuy rey doomu sénégalais yi en deux ans soixante dix au moins ndaw amuñu ngànnaay amuñu dara ñu rey leen loolu mooy un bu noir Macky Sall c'est un bu noir donc c'est pas très étonnant qu'il remplace le Faidherbe blanc mais damay ñaawlu leneen bi président Ousmane Sonko maire de Ziguinchor soppiwee ay tur Ziguinchor lu tax ngeen tere ko ko xaj ak seen léegi nag yéen yaa ngeen di soppi ay tur monsieur le ministre 28 août 2023 <coughs> damay lire Omar Ba DG de euh, de la grande de la grande muraille verte de l'agence de la grande muraille verte <coughs> jéggal leen ma damay lire Omar Ba 28 août moom mooy njiitu agence grande muraille verte mu wax loo xam ne lu ma tiital la te ñun sénégalais yi bu dee dañoo bëgg yëngal yi ñu takku ngir liggéey soppi ñu yokk jom naam am nañ jom yokk fulla il faut ñu leen di tiital il faut ñu leen di wax la vérité Omar Ba dafa ne bés bu nekk Sénégal ñu ngi ñàkk lu tolloog ñetti téeméeri ñetti téeméeri terrain football à cause de la désertification journal Le Soleil laa ko la le 28 août may lire son interview mu ne chaque jour le Sénégal perd l'équivalent de trois cents terrains de football à cause de la désertification yooyu monsieur le ministre du gàcce Macky Sall xam nga lan la foog ñu wax Sénégalais yi dëgg pour ñu xam ne war nañ gën a yokk fulla ak fayda la lutte pour l'arbre et la forêt est devenue décisive pour ñun moo tax foog naa ne foog ñu gën a jàppale dooleel ñii di liggéey ci sa muy agent yi euh, bi ma la mujjee gis fii ak tey 14 avril ak 20 juin interpellé na gouvernement bi ci ay arriérés de salaire yi ndaw yii liggéey ci ministère de l'environnement rawatina ci agence de la grande muraille verte dans le cadre du programme xëyu ndaw ñi am ay arriérés de salaire juin interpellé naa à travers une question écrite le gouvernement sur les arriérés de salaire yi ñu amel ndaw yooyu 20 juin 14 avril plutôt 20 juin tamit donc foog ñu fulal ñooñu il faut ñu dooleel leen mënuñu ñàkk 300 terrain de football ci garab bés bu nekk ba pare ñuy ñàkkal fayda ñi nga xam ne ñooy liggéey ci loolu rawatina ba léegi ci liggéeykat euh, nos soldats de l'environnement les gardes forestiers am na ci fanweer yoo xam ne 1997 lañ leen recruter ba tey ay contractuels lañu ils sont payés moins de vingt boobu de ñu ngi sàcc alalu Sénégalais yi depuis 97 ils sont recrutés et travaillent d'accord et waaw parce que sàcc rek ngeen di def parce que sàcc rek ngeen di def parce que la gouvernance du président Macky Sall est une gouvernance de détournement de sàcc de ba ay soldats de l'environnement di toog depuis quatre-vingt-dix-sept ils sont des contractuels payés moins de vingt mille loolu nag day jeex dafa war a jeex